بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينصر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم مسكين الرياح فيظلمن رواكد على زهره إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وما أنتم ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجاهدون ما لهم من مغيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذي صدق الله العظيم man raddahu kurima ñu xam alxuraan loolu la ñu wax téere bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy cosaanu téere am am yépp léegi nag ku ci nekk yàlla nekk ci yow ku ne ko tegg fee yàlla ne la tegg fee kon ñu jàll ak dunyaa yi ci ilayhi raddu ilmu saa bismillah الشيطان الرجيم إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتقاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا وققب بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب sadaqallaahu al-aziim بسم الله خراج خرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من خرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبقوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وتعزاهم وتعزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم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 حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون تذكرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعيائكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يأتي يهدي السبيل ادعوا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسقرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء كسفا من السماء كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منصورا جزاك الله خيرا الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب يا مخلقة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونحر في الأرحام ما نشاء ما نشاء إلى مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم ومنكم للأمور صدق الله العظيم waaw Zakaria Zakaria أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي يوم wish you ñi nga xam ne jàng nañ téere suñu borom bi ba mokkal ko ñoom lañ cere le yi ñiñ jaar ñépp nag dañ doon gunge rek dañ doon gunge rek waaye ñii moom ñii ñuy bëgg a dugg ñoo tax xafla bi am ñu jëkk ci Baye Dame Diop Baye Dame bu taree alquran ba noppi dana def benn discours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 alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala rahmatin lil alamin wassalaam wassalaam ala rahmati wassalaatu wassalaam ala rahmatihi ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma baad fa ya ayyuha al aba wal ummat wal qadiruna wal qadirat uqayyikum bittaqiyati al islamiyyi ala wahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaye daal Diop daa mel ni déggoo liñ la wax dañ ne nga taril ñu alquran ba noppi doo nga jàng discours bi lañ la wax waaw. dégg nga. waaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون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 والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن اقترى بأثره إلى يوم الطامة الكبرى أما بعد فيا أيها الآباء والأمهات والقادرون والقادرات أقيكم بالتقية الإسلامية alaa wayi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu fa inna dustuurana alyawma yaduuru qawla alqiraa'ati wa samarataha fi xayaati alfardi wa fi almujtami alqiraa'atu hiya albawaabatu alula litalaqqa aluluumu almuxtalifati walmutanawia wa hiya alwasilatu alwaqiidi lintiqaali almacrifa awwalu amri lilahi jaa bi alwaqyu alamin للنبي أمي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين اقرأ ولم يقل صل اركع اسجد لا كل اصرب لكن قال تعالى في أول آية أنزلها على نبي صلى الله عليه وسلم اقرأ هناك سؤال يطرق نفسه إجباريا متى نبدأ بالتربية عند طفولتهم نبدأ بتربيتهم لأن الطفل كنبتة صغيرة تنمو وترعرع فتشير شجرة شجرة نافذة مثمرة أو وارفة الظلال أو قد تسير طارة غير نافعة شجرة شائكة أو صامة والعياذ بالله فكما تغرس على طعامهم وشرابهم وثيابهم ومسكنهم فاغرس على إعدادهم الإعداد الجيل المفروض alayka wa tarbiyatu min qays akhlaqi wa tasrau liman billah fi qulubihim wa ihtimamuka hada lahu zamanun muqaddam wa idadu l awlaadi la yakun tiwalu amarihim bal lahu sinnun muqaddam ala wahi sinnun taklifi lcharhi wa nalam lilwaladi haqqan ala lwalid wa man amala taalim waladihi ma yanfahu wa tarakahu sudan faqad asaa qayat isaa والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريدة على كل مسلم والخطاب يتوجه إلى المكلفين بأعيانهم فإلى الآباء والمربين والخطاب يتوجه إلى المكلفين بأعيانهم وإلى الآباء والمربين إذا تعليم الأولاد فرض عينه فلا تهملها كما كانت الصلاة مفروضة عليك ثمرة العلم في المجتمع ويقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات رفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة في الدنيا رفع ذكرهم عند الخلق ورفع مكانتهم ومنزلتهم وأما في الآخرة فله الدرجات العلى وأي سلف أعظم من ذلك وأما في السنة المطهرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال man salaka allahu tariqan yatlubu fihi ilman salaka allahu bihi tariqa min turuqil janna fa inna almalaikata la taramu ajniqataha ridan li talibil ilm fa inna alalimu la yastaghfiru lahu man fi lsamawati wa man fi l ard walqitaanu fi jawfi lmaai fa inna alfadla alalimi ala alabidi ka fadli laylati albadri ala saiki alkawakibi وبالله التوفيق هذا ما توصلت من البعث المتواضع ونسألك الله أن يجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما nekk discours bu am solo waaye tamit nekk discours boo xamante ni ñëpp war nañ see bàyyi xel ñu xoolee yàlla subhanahu wa taala aaya bi njëkk wàcce si yonent Muhammad sallallahu alayhi wa mooy iqra wax mi leeral na ko iqra bismi rabbika alladi xalaq yàlla wa taala waxul yonent Muhammad sallallahu wa sallam na ko jàngal waxul waxul ko lekkal benn na ko jàngal waxul ko nga xam ne ëllëg yowmal qiyaamati moom lañu njëkk rek leer bu si lépp baaxee lépp baax na mais ànd ak loolu yëpp dogoo jiital na ko jàngal loolu foofu dana am question bu posé wu mooy lan kan la ñuy commencé jàng ak kan la ñuy commencé yar suñu xale yi xale bi ñu ngi koy commencé yar mooy fu mu nekkee xale. dem ba xaw a nekk mag 13 ans 14 ans ba jam ba jamono jooju foofu la ñu commencé yare xale di ko jàngal li nga xamante ni moom la l'islam jàngale ñu war koo xam xale moo ngi mel ni comme benn benn waay jëmbat benn garab garab boo xamante ne da nga arrosé chaque jour ak beneen boo xamante kenn arrosé wu ko lu ñuy amee farqu noonu la xale bi nga xam ko toppatoo ba mu nekkee xale di ko jàngal di ko teetee la ñu amee farqu bu xoolee garab garab bi nga xamante yaa ngi koy jëmbat di ko arrosé commencement da nga si sonn ba fin ba day mujj nekk am fleur am comme ni nga xamee dem ba am meññit ba nit ñi di si jëriñu ko noonu la xale bi nga xamante ni toppatoo nañ noonu la mel mais xale boo xamante ni kenn toppatoo ko moo ngi mel ne garab boo xam ne da nga koy jëmbat doo ko arrosé doo ko def dara. loolu day mujj ni dee mais li ko soo dee léeg-léeg mën na nekk sax dëkk wala yaasu mooy agressé bi gën ak bandi jamais kon jàng am na solo mu wax biir discours bi nee na fa kama tahrisu ala wa sarabihim wa maskanihim fahrisuhum ala i'dadihim al i'dad al jayyid al mafruud mooy lan ne comme ni nga sonnee si ñoom seeni lekk seeni naan doo bëgg mukk ñu xiif doo bëgg mukk ñu rafle nit noonu noonu nga war sonne si ñoom ñi xam ñu xam xam lu am solo la bu nga xam nag tënkul ko si rek xam sa diine mais ñaar yëpp ñoo ànd ndax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw taxalu ñaar yëpp muy xam diine walan xam tamit àdduna am ndax sa àdduna fii ngay liggéey sa àllaaxira kon leeral na ko si biir discours bi mu wax neen sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam dafa war si jullit jullit nag bi nga waxee jullit bu góor a dugg ak jigéen ndax euh, fenlu amri bi maanaam jub dafa di ko jublu si parents yi ak yarkat yi ak ñë képp koo xamante ne rek yaa ngi am relation si xale ñooñu dañoo war a taxawee di yar xale yi di leen jàngal loolu nee na nekkul seen diiru dund ab période bu gàtt la lu ko daggee ay trois cent quatre-vingt jëm ba dix ans treize ans daf bay quinze ans xale bi day daal di nekk majeur xamante ni li nga sas bàyyam moom dañ koy sas mais durant boobu yëpp lu ko dalee fu mu nekkee xale ba fu ngi nekkee xaw ma tuuti treize ans côté loolu yow waajur bi yaa si war a bàyyi xel xam ne ëllëg responsable bu rëy la yàlla subhanahu wa taala dana la ko laaj moo tax man wax si alquranul karim suratul abasa nee nit ñi daañu dawante way jur ak doomam xarit ak nawlem ñëpp daañu dawante ngir daan képp koo xamante ni li nga war a taxaw la taxawloo ko dañuy daal di dawante mooy loolu pour ko fi suñu àdduna sa xam-xam tudd na am na am na rôle bu baax wax ñu ne fii si société bi waaye balaa société bi jëriñu yow mii sàkku xam-xam yàlla jëriñu yàlla subhanahu wa taala mooy wax si alquran karim yarfau llahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajaat yàlla subhanahu wa taala dina yëkkati nga xam-xam dañuy sàkku xam-xam nga xamante ñu gën ak ñuy sàkku xam-xam nu mu yëkkatee mooy dañu yëkkati seen tur fii si àdduna ba xamante ni ñëpp ku jamono wante moom ak ku jamono wante moom ñëpp xam ko xam valeur am xam xol la taxe woon daan si tuddi ñeen rek ku demee ni si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ku nekk xam nga ko doonte ne jamono wante la moom yaa ngi dégg turam lu dégg bëccëg suba ngoon ku demee ni Alhaji Malick Sy radiyallahu ku demee ni Ibrahima Niass ñooy ñëpp xam-xam moo leen yëkkati ñu dëggal wax yàlla subhanahu wa taala yarfa'u Allahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajaat waaye léegi ñun tamit dana leen yëkkati yawmal qiyaama solo leen dafa leen bu kawe bu raw seen njort ba ñuy laaj na waa ñee ñoom ñooy ñan ak lenn ndox ma yàlla fayal leen nii loolu xam-xam rek moo ko. man xam-xam rek moo jar a pour am loolu te bu xoolee sa xadis tamit ngeen gis luy feddali loolu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee xam-xam malaaka yi dañ koy jéggul yàlla subhanahu wa taala waaye malaaka yi dañuy wàcc seen mbagg ngir lan suufee lu xam-xam ki nga xam ne ni mooy sàkku xam-xam waaye ki nga eh, jën nga xamante ñoom si ci géej gi tamit dañuy jégalu kooku yàlla subhanahu wa taala jaam bi nga xamante ni man sàkku xam-xam xam-xam ni ki noonu biddiw ngëneelu xam-xam ak yi xamante ni amul xam-xam seen maa ngi daaneel foofu la laa daaneel eh, mooy sa xadis bi li mu mu dëgg rek nee mooy ki mooy ak weer bi yow nga am na treize jour 14 15 bu muy leeree noonu la wuteeg yeneen biddiw yu ndaw yi kon kuy jàng xam-xam di jaamu yàlla subhanahu wa taala noonu la wuteeg kuy jaamu yàlla te amul xam-xam kon bu xoolee seen différence réer na wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi loolu la tënkoon si lugal arabiya loolu la ko jotali si lugal mahaliya lugal olofiya asalaamaaleykum wa rahmatullah. nit ñi mënta jaamu yàlla te xamul. ndax nit mënta def lu xamul bu jaamu yàlla amee itam day ànd ak yar ak i teggin du am loolu mooy waral faaw nit ki ñu yar ko ba kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ila al ada wa taadi kon jërëjëf oustaz jarul guddal leer na ni kon ñu dal ci donc bu ñuy wax Serigne Fallou Samb